nekkoon clip boo xamante ne du la trahir bu ñu jógee wax ci mbëggeel gars yi ñëwaat wax ci trahir mais lii damay bàyyi rek Pa Assane wax ñu clip bi kañ la nan lañ ko tourné parce que je sais que je connais ton amour pour eh, <laughs> sax xam na clip bi mu demee. ah xamoo ci dara ma wax. déet déet ah, clip. waaw waaw une vidéo qui date de deux mille quatre. 2004 boobu Abdou mu ngi doon euh, door a agsi nekk ku am talent. oui euh, Abdou Rass Ngone moo ko découvrir Ngone Ndour moo ko découvrir romb ko fële ca Sandaga muy oh. mu xëcc ko ne ko yow foog ñu jàppale la. loolu c'est ça l'histoire Abdou bi nga xamante ni moom moo créé Mbaras bi Fatou Guewel di way en tout cas ñoo ñoo defandoo duo bi. exactement ah, c'est magnifique et Abdou après <clears throat> cette vidéo c'est un produit de Boubacar Ndour. Bouba moo ko gàddu moom ci jolol ju jëkk ga gàddu ko téye ko yan ko organiser ko dem gàddu ay valise valise valise pour que Abdou Rass def vidéo bi une vidéo assez sympathique et surtout boo xamante dafa mel ni dañ ko jëlee fii dugal ko fi mu explosé un succès retentissant. on le ressent toujours et, et, et une musique bien faite je pense à koo xam ne faw ñu nuy ko rendre ko hommage bu baax muy Lamine Faye qui a été à la guitare sont touchés à. à le grand frère Habib Faye Habib Lamine donc. Euh, joué na ci lu am solo un album boo xamante ni daanaka trahir bi sax mooy morceau bi ci gën a am mooy gën a am mooy am doole parce que yeneen morceau yi xam te naa la ñuy tàmm titre mais l'album en lui est puissant. ah kon macha allah gis ngeen am nañ suñu beneen dose de culture générale musicale Pa Assane daal yàlla na fi yàgg te wér. amiin ñu bokk. <laughs> voilà donc euh, bu ñu jugee nag ci suñu musique du jour dañuy daal di dem rek ci savoir vivre et savoir être junj naa leen ko sànq roxee mooy si dikk ak ñun waxtaane ñu li nga xamante ne mooy comportement yi nit ñi di am euh, ci biir transport en commun yi laata rek ñu koy bàyyi moo gën a yaatal rek ñu dalal ko. Alors, Kia, ce rouge baax ah, na. j'adore ta couleur may naa la ko bu dàkk bii sax ngay am yow moo tax euh, ci noonu lay commencer rek pour fàttali li nga xamante ne saa su nekk ñun dañ koy soxla pour ñu déplacer wu dafa am solo pour ñi nga xam ne aussi amuñu oto amuñu moyen de déplacer. duñu dugg ci yenn transport en commun yi moo tax ñuy ñëw di souligner yenn erreur yi nga xam ne ñu ngi koy faral di def yenn comportement yi nga xamante ne ñu ngi koy def te nekk na loo xamante a mën a bàyyi parce que franchement rafetul parce que dañuy gis ne njaganjaay yeeg kaar yeeg bus yeeg tata yeeg ñëpp moom la ñuy jël ñuy dem pour bëgg gaaw yegg fa ñu jëm moo tax nag war nañ ci veiller à ce que muy am na ñoo xamante ne dañuy lekk rek daal di sànni ci biir car rapide yeeg tataay boo ci yéegee sax da nga naan waa man ci lan laa yéeg ni te pourtant moo ñuy sagal ndaxte ñun ñëpp ci la la ñuy yëg ndax képp ku am oto mës ngaa jaar ci mës ngaa yéeg ci car rapide tata wala jaganjaay moo tax nekk na loo xamante ne moom la ñuy a euh, ñàkkal fayda fi te pourtant daf ñoo amal bu baax a baax le fait de les surcharger aussi baaxul da ngay gis oto boo xam ne dañ koy surcharger ba mu fees dell loolu baaxul sax ndax du si sécurité nit ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir maanaam passager yi donc xoolal da ngay gis koo xamante ne day yàpp ay valise te pourtant lii mën na dem dëkk dëkk bus yi nii dafay créer aussi ay accident yooyu nañ ko bàyyi waaye tamit da gis koo xamante ne day toog ci car bi rek commencé bu fa gisee ku mu xam rek commencé raconter tout sa vie di waxtaan di yuuxu di xàkkataay yooyu yëpp danga koy gis ci car rapide yi da gis ñoo xamante ne bu ñu duggee ci oto rek nit ñi dañ leen di xoolante di leen di leen wokkante ndaxte ndaxte à chaque fois dañ fay def yi nga xam ne franchement yooyu boo koy def mën nga ko def en aparté mën nga ko def feneen fu dul ci car rapide ndaxte dañ fay tase dox dajale da nga gis koo xam ne sax da ciy def buzz bi gi day dugg ci biir bis bi rek commencé na dégg nga li ñu waxal démb asma wala démb gis nga Yacine sekk la mu commencé di wax te xamoo ba xam Yacine am na fa mbokk ndax nañ réew mi ñëpp a xamante donc yooyu nañ ko éviter bu baax a baax waaye tam da ngay gis koo xamante ne day toog jël bagage am teg ko ci place bi mu dendal ba bu keneen yéegee ci bis bi sax du du am fu mu toog balaa mi am fu mu toog foog mu xool xoolaat bu tànk demul feneen yow doo am xelu yëkkati sa saak te pourtant dañuy gis que ne ñu ñu ci bëri dañuy am habitude boobu maanaam dañuy xaw a siis daal xamuñu fan la jógee neen di dugg dañuy dañu teg suñu bagage dañu bëgg ko dend ak ñun te pourtant amul kii amul kii amul euh, doomu kii dafa am amul kii dafa am xaalis amul kii yorul ndaxte ñëpp ñoo bokk même paas bi ñuy fay nañu bàyyi xeebante bi maanaam ci biir transport en commun yi ndaxte ñun ñëpp ci yam destination finale rek moom moo ci tax a jóg ku nekk boo yeggee sa place dangay wàcc cëppeelu ndànk daal di dem waaye en parlant de cëppeelu ñi di taxaw ci yii ay waay lii lii wóorul lii ñuy taxaw nii ci car rapide lii nu mu Euh, marche pied. marche pied bii nii ñuy tax nga xamante ne d'habitude ba pare ne ci téléphone bi. dégg nga loolu. gis nga lii lii sax dafa ah. dafa wóorul lii war nañ ko bàyyi parce que ku la ci ku la gis nii du la nawloo danaan kii amul dara lu nekk ci boppam danaan kii sax est-ce que am na li nga xamante ne moo ngi koy xaar këram ndaxte kii bëggul àddunaam ndax bëggul bëggul li nga xamante ne moom bëggul euh, bëggul excusez-moi boppam moom la ñuy wax donc euh, nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mais aussi euh, am na ci ñi nga xamante ne bu ñu duggee ci oto balaa ñuy dend kenn dañuy xool di xool bu seppale kan lañ war toogal ndaxte dañ naan kii bëgguma dend ak moom wala kii bëgguma dend ak moom dañuy taxaw di am benn regard boo xam ne yow passager yi am nañu ne dañ ciy sax gis seen bopp ndax dañuy dañuy xool bu ñu waree toog fii da ñu war a toog mais dañuy choisir fan la ñuy toog loolu aussi c'est à éviter mais aussi di marginaliser ñi nga xamante ne ñooy chauffeurs yi ak apprenti nañ ñu ci bëri ñoom itamit dañ leen di ñàkkal fayda te pourtant liggéey bu noble la ñuy def ñoom itamit ñu xoolaat li nga xamante ne moom mooy seen caractère ndax da ngay gis ne dañuy am ay kàddu yu ñagas yoo xam ne ñu ngi koy jox ñi nga xam ne ñoom ñooy yéeg ci oto yi loolu aussi c'est à bokk na ci comportement yi nga xamante franchement loolu du savoir vivre loolu du civilisation nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax chauffeur yi carapité dañuy arrangé mais aussi ñoom itam bu ñu mënee xool seen accoutrement ndax nee nañ uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee moo tax ñu bëri xam naa di leen euh, sous ci yenn côté yi ndaxte d'habitude da nga leen di gis dañuy tilim dañuy ne day takk huile ndaxte bi parfois peut-être moom te ndaxte transport en commun yi ñun moom la ñu am encore une fois te ci la ñuy yéeg pour mën a yegg à destination bi nga xamante ne moom moo ñu arrangé ñi jàngee ci la ñuy dugg ñi nga xamante ne dañuy xëy am problème dañ ci dugg donc ñu gën a toléré suñu relation ak yenn passagers yi. mais tey jii da ngay lang euh, yéeg kaar da nga gis apprenti buy tux dafay am. Mhm. il faut aussi tamit souligner ceci parce que léeg-léeg da ngay dugg am passage boo xamante ni xëy na dafa asthmatique. boo tuxee nga sonal ko. wala daa am sinusite. Mm-hmm. wala ñii nga xamante ni dañuy jël transport en commun di tafuwaate. yooyu tamit dañ ko war a moytu. ndaxte bu feesee yenn fees yi moom mooy waral nga gis sa dégg ku naan dañ maa sësu parce que day fees yenn fees yi te ku ne mën ngaa taseeg moom am na ñoo xamante ne sax c'est involontaire. Mm-hmm. mën nañ la jege rek nga ne ak ah, kii lu may laalee commencé surtout suñu mbokku jigéen ñi bëri na ci ci def loolu di taqal ñi nga xam ne pour pourtant amuñu sax amuñu woon sax esprit boobu mais aussi am na ñoo xam ne nag ci la ñuy dugg pour ñi nga xam te ne la ñoo feebar obsédé sexuel lañ mën nañ leen tuddee noonu ñooñu tam mën nañ leen cee susu di leen tafu di jël seen alal loolu yëpp ci biir la bokk Pa Assane ñu ñëwaat tuuti ci euh, comportement yooyu rek da ngay faral di dellu si ci euh, euh, yer yer ci biti c'est-à-dire euh, tu reviens souvent sur le fait que les Sénégalais on, manque un peu de tenue on ne se on ne se on recadre pas par rapport à, la tenue te loolu dañ koy faral di gis bu bëri ci transport en commun yi. xam nga daanaka li ma bëgg a wax Rokhaya da koy wax ba pare peut-être mën naa jéem a xool fenn léegi dama koy wër dama koy wër. day baax pour man tolluwaay. ku si nekk. na mu yaroo fañ ko yaree fa mu jóge noonu lay duggee ci rajo bi. noonu lay mhm. duggee ci télé bi noonu lay mhm. duggee ci kaaxa bi noonu lay duggee ci oto jàmbur noonu lay duggee ci otoom man ànd naa kilifa mu toog ci otoom ma toog nii mu toog nii ñu jënd banaan. te voilà. Euh, euh, euh, maanaam dafa banaana bi di wax ak yow. et puis c'est pas conseillé de. kilifa kilifa bu mm-hmm, man donc man man a ko diw bu parce que nag man xam naa loolu peut-être bokk na ci samay awma ci kersa. man a ko diw li nga def nii mais mais ñaaw na. mais lu xew mën a ko nangam ak nangam mu door a rendre compte tolluwaay la culture la keroog yaa ngi koy wax sa jarbaat boo xamante ni nangami at la am xalaatu loolu mhm. nañ ko yaree nañ mhm. nit ñi ni ñu mel la société sénégalaise mu toll foo xamante ni dañu war a ñun ñëpp ñu defaraat ñu mhm. mais pour ñu defaraat ñu faw ñu lijjanti benn mbir li war a jaar yoon jaar yoon ki ko war jaaral yoon jaaral ko yoon doxee ko ñu gis ci moom modèle bi daal di appliquer que l'État mette les conditions de contraindre les populations à respecter la norme mais sachant que ce mhm. même État mhm. moom ci doxalinam ci ay institutions dafay fonk li nga xamante ni moom la maanaam séq ak ñun mhm. ci respect ci defin ci jëfin pour que ci kaw exemple bi di jógee ci kaw di wàcc si ñun données yi changé car rapide yii am nañu njëriñ de waaye waratuñ fi daw dëgg la tas yi dañ ko indi woon pour loolu mais nañu continuer mutation bi mais jox leen ko ci ni mu